daleen ak jàmm ginnaaw Abdoulaye Mbaye Pekh Serigne Gana Messere keneen ki yoon woolu woon ba teg ko loxo di Serigne Axma Mbacke di doom ci Serigne Mourtala Mbacke moom nag yoon mu ngi ko teg loxo bi mu waxee woon ci ab bu doon circulé ci réseaux sociaux yi di wax ni coronavirus amul Touba te kii di ministre Diouf Sarr day wax lu ko neex rek. asalaamaaleykum wa rahmatullah man Serigne Axma Mbacke ibnu Serigne Mourtala Xaadim Rasul man maa ñëwoon tey di am ay ay kàddu yu ma bëggoon yëkkati jëmale ko ci tous les Sénégalais. maa ngi nuyu Serigne Mountakha Mbacké xalif général bi di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tamit ànd ak wér tey nag suñu discours lan la muy mu lu jëm ci euh, jàngoro bi xew ci jamono ji muy coronavirus dañu wax ne euh, dafa am benn muudu muudu bu ko jëlee Italie indi ko Sénégal dëkk Touba loolu nag may xamal euh, mouridisme yëpp ak jullit yëpp di leen wax ne loolu dara du ci dëgg ndaxte lu toll na feebar boobu. Euh, moodu moodu bi itaan la jóge te ci avion lay dugg jaayu ci suuf doxul te dafa am ay nit yoo xam ne dañoo ñoom la bokkal avion ñu wàcc jas te avion bi ñëpp dëkkuñ Touba ñii dëkk nañ Thiès ñii dëkk Ngaay ñii dëkk Dakar ñii dëkk Kaolack ñii dëkk Bambey ñii dëkk Touba ñu jël benn nit siti ko ne Touba la dëkk Daaru Manaan te euh, Daaru Manaan la dëkk te loolu ñu wax dara du ci dëgg te ki jiite hôpital Matlaboul Fawzeyni taxaw na ne amagum benn benn cas bu ñu recevoir bu Casamance ki nekk ndaanaat tamit aussi c'est la même chose nee bi tamit gisul benn cas boo xam ne coronavirus moo ko jàpp. centre bi ñu wax ne bu nekk daal na naan borom centre bi aussi euh, def na déclaration wax ñëpp ne euh, gisul benn cas boo xam ne indi nañ ko centre bi kon nag bu ñu cité nañ ci génnee Touba ndaxte Touba. borom moo borom Serigne Touba da ko aar ci lépp lépp luy lor dafa dugg ndax Serigne Touba saa nafin bi laa dara njëriñ ju ànd ak loolu la kon nag naka murid yëpp xam te waaye te màggalu Serigne Fallou gi Serigne Fallou moom mën na kanamam mën na ginnaawam te jàpp naa ne ak loolu du wàcc ci dëkk Serigne Touba boobu rawatina ci màggalu Serigne Fallou ndax Serigne Fallou ñëpp xam nañ ni mu demee suñu borom ñëpp xam nañ ni mu jubóo suñu borom subhanahu wa taala kon nag bu fekkee dañoo jël ay décision pour pour xeex waa Touba wala yooyu nañ ko annulé parce que euh, wax ji ma wax nag man sëñ Ahmadou Moutalla euh, soxna maam Xadim Mbàkke moom sëñ Moutalla moom laay waxal ndaxte moom doomi sëñ Touba moo ko jural dafay àdduna woo koo jaral mu ànd ak état ak alal li àdduna di xeex dëkku maamam bi ndaxte sëñ Touba mi xam mooy maam amul bu gën a kawe dëkkam bii dëkkam bi la bëggoon lool dëkkam bii la gën a bëgg ci ci àdduna kon nag li ñuy def nii amul am amul àdduna jëriñ ko bàyyam si mot laa kenn mus koo xam ci ñàkk fere yi kenn mus koo xam ci politique kenn mus koo xam ci fi état kon nag état buñ la jiital ngay ñëw naan ay Touba waa Darman dañoo tiit dañoo nangam loolu lu ñu koo jaral loolu dafa war a dëggu dem jaamu ji yàlla ndaxte sëñ mot laa bàyyam xamutoon yu ñàkk fere yi te dalay àdduna lu mu koy jaral ñu wax lu dëgg ci ñàkk fere yi. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah gi mu weddi nag autorité sanitaire yi nga xamante ni ñoo ngi doon def ab liggéey bu am solo ngir xeex covid 19 maanaam coronavirus bañ law ci biir réew mi Serigne Axma Mbacke nag daal di yëkkati woon ay kàddu yu ñaaw teg ko ci kaw kii di Diouf Sarr te nag ñu daat koy jox ab convocation waaye demul wuy ji daf ko rejeté asalaamaaleykum wa rahmatullah man Serigne Axma Mbacke ibnu Serigne Moutada Khadim Rasoul man maa am ay ay kàddu yu ma bëggoon yëkkati jëmale ko ci tous les Sénégalais maa ngi nuyu Serigne Mountakha Mbacké xalifa général bi di ko mu yàgg fi loolu tamit ànd ak tey nag suñu discours lan la muy mu lu jëm ci euh, jàngoro bi xew ci jamono ji muy coronavirus dañu wax ne euh, dafa am benn muudu muudu bu ko jëlee Italie indi ko Sénégal dëkk Touba loolu nag may xamal euh, mouridisme yëpp. ak jullit yëpp di leen wax na loolu dara du ci dëgg ndaxte lu toll na feebar boobu euh, moodu moodu bi Italie la jóge te ci avion la dugg jaar ci suuf doxul te dafa am ay nit yoo xam ne dañoo ñoom la bokkal avion ñu wàcc jas te avion bi ñëpp dëkkuñ Touba ñii dëkk nañ Thiès ñii dëkk Ngaay ñii dëkk Dakar ñii dëkk Kaolack ñii dëkk Bambey ñi dëkk Touba ñu jël benn nit ko ne Touba la dëkk Daaru Manaan te daasama naa lu dëgg te loolu mu wax dara du ci dëgg te ki jiite hôpital Matlaboul Fawzeyni taxaw na ni amaguñ benn benn cas bu ñu recevoir bu Casamance ki nekk ndaanaat tamit aussi c'est la même chose nee na tamit gisul benn cas boo xam ne coronavirus moo ko jàpp. centre bi ñu wax ne bu nekk daal na naan borom centre bi aussi euh, def na déclaration wax ñëpp ne euh, gisul benn cas boo xam ne indi nañ ko centre bi. kon nag buñ dee cité nañ ci génne Touba ndaxte Touba borom moo borom Serigne Touba da ko aar ci lépp lépp luy loola dafa dugg ndax Serigne Touba saa naxam bi laa dara njëriñ ju ànd ak loolu la kon nag naka murid yëpp xam te waaye te màggalu Serigne Fallou gi Serigne Fallou moom mën na kanamam mën na ginnaaw te jàpp naa ne ak loolu du wàcc ci dëkk Serigne Touba boobu rawatina ci màggalu Serigne Fallou ndax suñ Fallou ñëpp xam nañ ñu mu demee suñu borom. ñëpp xam nañ ñu ngi jubóo suñu borom subhanahu wa taala kon nag bu fekkee dañoo jël décision pour pour pour xeex waa Touba yooyu nañ ko annulé parce que euh, wax jii ma wax nag man si sëñ Ahmad Moutalla euh, soxna maam Xawi Mbàkke moom sëñ Moutalla moom laay waxal ndaxte moom doomi sëñ Touba moo ko jural dafay àdduna woo koo jaral mu ànd ak état ak alali àdduna di xeex dëkku maamam bi ndaxte Serigne Touba mi nga xam mooy naaw amul bu gën a kawe dëkkam bi dëkkam bi la bëggoon lool dëkkam bii gën a bëgg ci eh, ci àdduna kon nag lii ñuy def ni amul njëriñ amul àdduna jëriñ ko bàyyam si mot laa kenn mus koo xam ci ñàkk feer yi kenn mus koo xam ci politique kenn mus koo xam ci fi état kon nag état buñ la jiital ngay ñëw naan ay Touba waa Darman dañoo tiit dañoo nangam loolu lu ñu koo jaral loolu dafa war a dëggu dem jaanu ji yàlla ndaxte Serigne Moutalla bàyyam xamutoon yu ñàkk feer yi te dangay àdduna bi bu ko jaay ñu wax lu dëgg ci ñàkk fee yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa waaye nag ñàkk wuy ji mu mel ni juralu ko jàmm ndax gendarme yi section de recherche yi ñoo jógal seen bopp daal di siweelu fekk ji ko ca këram nga bu nekk daat koy teg loxo ci ginnaaw bi nag mu daal di jégglu waaye taxul ñu bàyyi ko ndax lañ ko doon toppee mooy diffusion de fausse nouvelle ci ginnaaw bi nag la ko procureur bi daal di bàyyi daat koy xamal ni ko nag mu tëj gémmiñam sëriñ Axma Mbacke mi ni woon Abdoulaye Diouf Sarr li muy wax ci jàngoro ji lu ci bëri du dëgg moom nag section de recherche jëli woon nañ ko ba déglu ko réccu na dellu ginnaaw ci kàddu yooyu nga xam ni moom moo ko yëkkati woon ba tax nag ñu daal di koy bàyyiwaat. avant ñu koy woo nag woo nañ fi Ablaye mbay Peex di ab communicateur traditionnel conférencier bi di Gana Messere ak waykat bi di Mame Gor Diazaka waaye nag ñoom ñëpp li ñu nemmeeku mooy ci kanamu enquêteurs yi ñoom ñëpp dañoo weddi li nga xamante ni moom lañ leen doon toppee maanaam dañoo dex ab wax waxeet te daal di nangu ni dinañ jàppale Abdoulaye Diouf Sarr ci xeex bi mu sumbu ngir daan coronavirus fii ci réewum Sénégal